18e ni wi mooy fukkeelu guddi gi ak juróom-ñett fukkeelu guddi gi ak juróom-ñett nag suñu naafale 10 jours dafay nekk fukki rakka ak ñaar ci juróom-benn sëlmal rakka bu nekk dinañ jàng fatiha benn yoon daal di ci teg suratul ala benn yoon mooy sabbihisma rabbikal ala suñu noppee ñu daal di ci teg suratul kafirun mooy xul yaa ayyuhal moom itam benn yoon suñu noppee ñu daal di ci teg suratu ixlaas moom itam benn yoon mooy xul huwallaahu axad mbokk yi ñu ne naafile bii nag ku ko def mën nga am yoolu ki nga xam ni dafa jël alal ju baree bari dépensé ko ci yoonu yàlla waaye tamit mën nga bokk ci ñi nga xamante ni si bu ñu dee dékki duñu am benn tiit wala tamit ñuy am benn jaaxle maanaam dañuy dékki ak seen conscience tranquille loolu moo nekkoon seen nafila du jour tey delluwaat rek di ñaanal yàlla mu nangul ñu lépp loo xamante ne si ñu ngi koy jaamu ci weeru koor bi di leen jaajëfalaat bu baax a baax ci safoo bi ak kóolute bi comme di ngeen ñuy faral di toppee chaque jour jox leen dig daje ëllëg incha allah fii ci seen seen préféré la nouvelle vision.